retour sur le plateau matinal Allô Sénégal mu ngi ci virage bu mujj bi dañuy dalal Keyna mu ngi ci plateau bi Keyna maa ngi lay nuyu dalal ak jàmm. maa ngi lay fay Aïcha. naka suba si. suba saa ngi nii. bàyyi ngi ci jàmm. alhamdulilah non ravissante nii. nii matinal nii petite robe. kenn du a ah? lépp Keyna la Star Store. c'est ñu bàyyi la nga nuyoo mbokk yi. merci beaucoup c'est toujours un plaisir Aïcha di la nuyu yow tamit t'es magnifique nuyu Kajoor Kajoor comme d'habitude euh, Pape Malick euh, yow également maa ngi leen di nuyu nuyu euh, téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan à travers le monde entier di leen jaajëfal bu baax Aïcha. Hmm. tey dañuy daal di ñëw ci li nga xam ne mooy les astuces. les astuces. Mhm. tey tey ci la la ñuy waxtaan. astuce bi ñuy ñëw nag Aïcha tey dafa dafa nekk loo xam ne dina intéresser beaucoup de femmes mais aussi beaucoup d'hommes yi nga xam ne bëgguñu li nga xam ne mooy euh, bouillon xam nga dafa am buyon yi nga xam ne naturellement euh, dañ koy daal di def ak produit chimique donc yooyu nag dafay daal di am ay inconvénients yi nga xam ne daf koy daal di indi après si suñu santé donc baaxut. rafetu santul yàlla donc dafay daal di nuyu su nga xam ne euh, mooy suñuy euh, santé donc mu indi bion yi nga xam ne euh, jigéen ñi mën nañ ko defar seen kër donc mu daal di am cafka bu neex boo xam ne day ànd ak bi nga xam ne moom ngay toggee donc bion yi nga xam ne baaxul cafka bi ngeen xam ne moom la leen di jox bu gën a neex boobu la leen daal di jox ma ànd ak complicité waa régie ñu daal di ma accompagner ñu daal di defar suñu bion voilà comme ni ngeen ko gisee nag bouillon bi dinañ soxla li nga xam ne mooy soble dinañ soxla yéenay xool nag ingrédients yi ngeen xam ne moom ngeen bëgg ah, parce que am na ñi nga xam ne dañoo bëgg lu naturel am ñoo xam ne dañoo bëgg lu saf lool donc voilà donc bu ñu soxlaa li nga xam ne mooy euh, soble tomate mais dinañ soxla également euh, poireau donc dinañ ko soxla dinañ soxla céleri mais dinañ soxla également carotte donc lépp danga koy daal di jël nga daggati ko euh, comme vous ba mu sew ngeen daal di ko def seen benn bool donc voilà mi ngi noonu gis ngeen Carole Ba nekk noonu. donc lii yëpp ay légumes yi nga xam ne euh, donc c'est très naturel donc boo leen paree ngeen jël seen mixeur cette fois-ci euh, bu ñuy mixer dañu ciy boole ndox d'habitude bu ñuy indi mix di def li nga xam ne mooy euh, mixer dañ ciy boole ndox pour mu gën a facile mais kon que épice la ñuy defar dañuy daal jël mixer bi kon que nag ay légumes la mën ngeen ko diviser en plusieurs parties pour ngeen daal di ko mixer boo leen ko jëlee mixer ko ba ngeen gis ne carrément moo ngi commencer mixer wu ngeen daal di seen benn kuddu wala ce que vous voulez ngeen wàccee ko. Euh, euh, gën koo mixé waat ba ngeen gis ne carrément dafa homogène euh, voilà ngeen daal di ko jël yëkku ko ci benn bool donc jëlaat moitié bi ngeen xam ne moo des euh, yéenay xool euh, ñaata partie ngeen ko bëgg a diviser ngeen daal di ko jëlaat mixé waat ko ba ngeen gis ne carrément melaat na comme nu mu meloon comme pâte comme vous voyez ngeen mélanger le tout dinañ soxla également li ngeen xam ne mooy xorom xorom bi nag mooy tax mu daal di conservation bi daal di yàgg lool euh, yéenay xool également yeneen épice yu leen neex ngeen daal di ko ci boole mais bii dañ ko daal boole ak xorom kese donc lii ngeen daal di ko jël jël seen papier cuisson ngeen daal di ko ci étaler dugal ko ci four bi four bi nag mën ngeen ko def à 100 degrés pendant 8 heures de temps donc yéenay xool rek euh, nombre de d'heures yi ngeen xam ne moom ngeen bëgg tànk gisoo leen mu mel nii waroo leen ko daal di génnee donc boo leen ko génnee da ngeen di dindi li ngeen xam ne euh, mooy papier de cuisson bi di ngeen gis nu mu woowee comme voilà nii lay mel normalement bu génnee rek ci li ngeen xam ne mooy four bi après ngeen jël ko Aïcha daal di mm. ko mixé waat euh, rek ci li nga xam ne mooy blender bi ah donc boo leen ko mixé wee poudre lay doon donc euh, ni ngeen ko gisee nii nag mu doon épice donc épice baa ngi nii ngeen jël seeni i pot daal di ko def euh, ci pot bi donc mën ngeen ko euh, garde ci tempérament bu nga xam ne dafay ambiante maanaam foo xam ne seddu tàngul donc dina mën a durer pendant plusieurs mois ah, donc ay épices de Aïcha yi nga xam ne mm-hmm. épice de boo xam ne non seulement naturel na mais boo leen xoolee mélanger yëpp légumes lañ ko daal di mélanger yéenay xool également bu nekkee vous avez l'habitude di defar ay li ngeen xam ne mooy nokkos yu saf yooyu bu ngeen ko def également euh, moo xam épice su nokkosu yàpp la wala épice su nokkosu jën wala sax épice bi nga xam ne dafay dem ci plat yëpp moo xam yàpp wala jën ngeen daal di ko defaree nii euh, def ko ay bouillon nag daal di ko conserver ay chat ci seeni bocal mu daal di jure yàgg lool te dafay daal di neex neexee chat. te dafay daal di neex. Mm-hmm. te amul benn produit chimique. day nekk lu nga xamante ne yaa ko defaral sa bopp. xam nga épice. Mm-hmm. dafa mën neexal toog mais Sénégal. dem ci bouillon yi toggee ko suñ togg moo ñu gënal foofu dem jënd ay épices te épices yi moo nekk lu nga xamante ni tey euh, bu ñuy wax côté santé mhm. boo xoolee tey nutritionniste yu bari mhm. ñu ngi tere li nga xamante ni moo di les cubes mhm. les bouillons parce que baaxul ci suñu santé ay AVC ay hypertension dégg naa sax ni que bouillon yi baaxul ci ngo ci ci góor a <laughs> day laal virilité uh-huh. yaa ngi comprendre mais mais mais mais ñun loolu yëpp dañ koy xam mais n'empêche dañ koy def dañ koy toog te li gën a garaaw Aïcha mooy boo jëlee bouillon yooyu ñooy jaay ci boutique yi nga jël ko raxasee ko sa cin day set day weex tàll ba pare même si karo donc nga xam ne luy weexal karo di weexal cin ah nan lay def ci butitu nit gis nga te te te li ma jaaxal Sénégal fii par exemple boo jëlee laurier oh, ah lu mën a génnee ay persil mhm. ah, ay laaj mhm. yooyu noonu mën nit ki mën na ko toggee def si géej gi ba mu saf te doo laal bu eh. bouillon baaxul di gone ndar bi nga ne lan ah est-ce que xamante na ni dañuy togg ba pare du ñu def cube duñu def cube duñu def bouillon xam dara dem naa fa dem naa fa ah, tournage ma seen waañ lu ne la géej gi rek ñoom géej gi rek la ñuy rosiwee koy géej ba mu ba mu saf bon ku bëgg bouillon la moom. <laughs> ko bouillon ba mu saf eh, lan la xam. xam kii naa yaa koy sosal de. bon la mooy différence dama dégg nga naan épice lu différence entre épice ak ak bouillon amul. xam nga bouillon ay cube yoo xamante ni y a des produits yu ñu ko defaree. ok usine bi moo koy defar. mais ah, épice. épice yow yaa yow yaa dañ koy defar mais du am benn produit chimique mhm. ay herbe la même lii sax bouillon la li ma def ay persil mhm. ay laurier ay herbe yu nga xam ne c'est des plantes naturelles sénégalais du ñu defar genre yi comme bu fekkee si c'est mais am na am na ñoo xam ne ñoo koy defar mais am na ñoo xam ne mënuñu ko donc euh, mënuñu ko defar naturellement moo tax tey ma indi li nga xam ne mooy astuce bi xoolal épices ay plantes la ay herbes yu naturelles moom la ñuy mélanger tu comprends. <laughs> defar ko man épices la day neex lan nga si xam kaani. mais kaani rek du épice. <laughs> bari na nag. Euh, lépp lu ñu toggee ci wàññi. Oh, xamoo dara waaye ci lu bari. <laughs> kii du sénégalais yow. Pape li nga xam ci waañ bi si boppam daa bariwul. bariwul de ah, kii nañ bàyyi Kajoor mu ñëw xëy na moom. ah Kajoor moom militaire en passant tu as une belle robe. merci beaucoup merci Kajoor. <laughs> léegi en fait c'est c'est une belle chose parce que ñun sonn nañ de gis nga ñii di añee ci mbedd yi. Mhm. ñoo ngi bëgg dee. parce que mhm. gis nga dañ lay tegal añ. añ bi doo xam ban couleur la. <laughs> surtout ceeb bu xonk. gis nga dañ lay lépp la ñuy <laughs> def si togg yi affaire bi finalement goût bi doo xam ban goût la parce que. fël-fël am na fu ma yóbbu nag léppay dugg ci biir ci biir togg bi. Mm-hmm. vraiment euh, euh, yaakaar naa war nañu gën a mën a. Mm-hmm. parce que boo xoolee. Euh, nutritionniste bu ñu lay wax méfait yoo xam ne moom mooy am ci li ñuy utiliser te bizarrement am na ñoo xam ne tey jii mënut mënut mënatuñu togg sans bouillon ba pare dañ ciy utiliser yu bari ay ñett ñeent c'est dangereux ñi jaay restaurant yi gargote yi ñun xam nga ñun moom ay mhm, célibataires yi ñun ay baadool lañ sax amuñu njëgu yenn yenn restaurant gastronomique yi si gargot yi lañ mën a dem. ñoom nañ ñu jàppale aussi ñu góorgóorlu parce que bu yooyu comme ne xam nga lii yomb na te c'est sûr que dina en tout cas caf ka bi ñu ci soxla waaw di nga ko am. Mm-hmm. vraiment ñu def l'effort de jàll ci lii. fël-fël fu mu la yóbbee ah? <laughs> lan mooy loolu sax lan mooy fël-fël. laaj ko Aïcha madame Faye mës nañ ne bu ñuy mag yow mel ni ku fël-fël suñu kanam bi foofu la ma yóbbu. léegi loolu yëpp jeex na madame Faye bu ñu message mais c'est qu'est-ce que tout début est difficile man je me rappelle ndeysaan quand je faisais la télé mhm. euh, télé bi ma njëkk def mhm. amoon naa ay dàll yoo xamante ni sama rakk bi ay danaan ma sama bojoo yi doo ko sàcc c'est-à-dire je mettais ces tout le temps parce que moo gën a rafet sama daal yi mooy tomba moor yi <laughs> arme de guerre daal yooyu sax ñëwee nga ko fi yàlla baax na kii naan yàlla baax na yàlla na yàlla dool tool ngay fàttaliku ah. dama lay fàttalikul de eh, baal ma wala ma fësal bi ma bi ma yor vidéo waaw ba may mel ni specté di sexy wow koom ah. ah madame Faye nag yafal nga ñu nag mais gis nga samay rondeur lépp madame Faye la <laughs> donc merci beaucoup j'espère que li ma indi tey neex na leen donc euh, pour ñi nga xam ne nag amuñu matériel yi nga xam ne mooy mixeur wala blender donc c'est très facile ni ngeen koy defee mooy dangeen di utiliser gën at kuur loolu cosaanu maam la ngeen dëbb ko ba mu mokk donc boo leen ko dëbbee ba mu mokk également mu ngeen ut seen euh, torchon ba nga xam ne dafa nekk en coton ngeen étaler ko ci boo leen ko étaler ngeen weer ko fi ngeen xam ne dafay euh, daal di air bi dafay daal di dugg dina gaaw a wow si terrasse bi wala yéen a xam foo xam ne rek du am poussière te boo leen koy weer aussi na ngeen ko muur ci dara donc ba mu aspiré li nga xam ne mooy ndox bi ba wow dina jël temps mais ba tey euh, mu mu gën ngeen bañ ko def boo leen amul rek li ngeen xam ne mooy blender d'achat j'espère bëgg ngeen li ngeen xam ne mooy li ma leen indiloon tey donc merci beaucoup di leen jaajëfal bu baax a baax mais aussi euh, di wax merci à Keyna la Star Store moom moo jaar ci robe bi nga xam ne moom laa sol donc nee naa leen friperie yu baax Sénégal maa koy jaay li ma sol friperie la jox nee na ma tu as mm. très belle robe. friperie moom la olof naan. fëgg jaay voilà mu ngi noonu. fëgg jaay am ci fëgg yu laa yu rafet doo ko nduróole kenn donc mi ngi noonu fëgg jaay bu rafet laa sol nii robe la donc euh, mën ngeen ñu contacter sur le 78 480 25 25 xale yi maa leen di solal euh, on se donne rendez-vous à Chaba suba incha allah à demain incha allah ci jeudi bi. dinaa ñëw nga jox ma ci affaire yi fëgg jaay Kajoor. mu nekk loo xamante ni ci ngay am du question de ndimbal njaboot sax mais ci ngay am ay affaires yoo xamante ni boo ko solee c'est unique pour nga gisaat ko sol problème non mais pour te dire da ngay dem dugg ci boutique bi jënd ko ba nga ne yaa ci nekk na mhm. sañse ko di liggéey <laughs> nga taseeg borom borom saret bi moom moom la def liggéeykaay moom la def liggéeykaay tenue de travail <laughs> nga bëgg a na ba koo summi ah, te doo fekk am si bëgg jaay <laughs> merci à demain merci beaucoup bonne journée à tout à tout le monde Pape. Ah, waaw bon merci à tous les téléspectateurs yu ñu doon seetaan mais xam nga ni xam nga ban drapeau nga sol ni démb xam nga maa la wax Jamaïque. Eh. tey xam nga ban drapeau nga sol. li nga def noonu saf na ma. xaw ma da laa rëcc xaw ma daal. <laughs> voilà c'est quoi. non non a la wax ci drapeau bi ma ne xam nga ban drapeau nga démb Jamaïque nga soloon. Euh, noir jaune ak vert. Hmm, tey nag ci côté naar yi de daa mel ni. ci côté naar yi. waaw waaw. Mhm. Hmm, drapeau Qatar laa solo. <laughs> Eh, mais mais mais ma foog ni sax eh, boo boo. seen drapeau bi ak xel. nu ah? ma si ah, bàyyi xel ak ni mu mel si ci hmm? digg bi. Hmm. à demain. waaw à allah. merci ñu ngi ñu ngi remercier téléspectateurs yi ñu doon seetaan euh, yëpp ce matin. merci beaucoup jaajëfal la régie Bamba au niveau de la régie Weuz au niveau de la régie yéen aussi ñu ngi leen di jaajëfal Khady Babacar ñoom ñëpp ñu remercier remercier leen merci beaucoup à madame Touré borom Charmel pour la perruque e est joignable au 78 266 le charme au féminin maa lay jaajëfal bu baax a baax je vous retrouve à 14h30 dans votre émission Slow Time euh, d'ici là portez-vous bien et restez bien scotchés sur nos antennes jaa ngeen jëf